Sénico moo leen di ñaanal ndogu jàmm. Baay Cheikh ak njabootam nga weeru koor bul ko wuute. Baay Cheikh ak njabootam nga weeru koor bul ko wuute yow. Baay Cheikh ak njabootam nga weeru koor bul ko wuute yow. Baay Cheikh ak njabootam nga weeru koor bul ko wuute yow. Di nga reetaan te jàng ca. sukaru koor wuute ko warul. Baay Cheikh ak njabootam nga weeru koor bul ko wuute yow. Baay Cheikh ak njabootam nga weeru koor bul ko wuute yow. Baay Cheikh ak njabootam. Salaamaaleykum. Yeah, hmm. il est là mon trésor. Aïe, aïe. Tu m'as manqué. waaye ay booy. ça va. namm naa la. waa Xasim. ci lan nga ne. noo de eh, mais nag yaay yow koor gi jàpp la ah da ngay da ci koor gi de man pour ma gis la rek xam nga damay sañse ah ça va non mais yaay namu naa la ci waa bu ci loone naka nga def ba yaa ngi am jàmm ay xaasim lu bees a bees xaasim yaa a bàyyi sa yaay nii yow tamit ah mais yow ku am ku mel ni yow du la bàyyi yaay suma <laughs> yaay en tout cas man tu m'as manqué oui ma yow tu as maigri ah mais c'est normal ah parce que léegi damay woor. sérieux. ah bien sûr que oui. ah. médecin bi ma sama papa yóbbuwoon lim ma wax moom lay appliquer à la lettre. Xasim. commencé naa woor na. yaa ngi ah bien sûr que oui. damay woor yàlla jërëjëf. alhamdulilah. ah léegi kay kon mën nga ñibbisi ci kër gi. ça jamais jamais. yaa ma jur te xam nga sama jikko man du ma ku ñuy génne suma bàyyi la nag suma kilifa la mais moo moom këram ginnaaw génne na ma këram man dootuma ñëw këram mukk dootuma ñëw xasim xasim mais sa papa sa papa la bi mu lay génne këram boobu bëggoon nga tegu ci yoon bi rek moo taxoon mais comme yàlla dogal na ne actuellement yaa ngi woor te yaa ngi koy def yow tamit nag ñibbisil nag yow tamit man tu me manques trop à la maison. yaay boy bëgg naa la torop respecté naa la torop mais tey rek nga ma ñaan loo komai. ni papa mënuma la koo may suma papa génne na ma këram moom papaam génnewu ko woon mais moom tey génne na doomam kon soxlaatuma ñëw këram. mais ba yow doo bàyyi. maa ngi fii ci sama kër maam ci jàmm. ay xaasim foofu dootuma fa ñëw. xaasim sa kër maam sa kër maam la waaye sa kër baay kër baay la de. te nag mbaa xam nga ni fi mu toll nii yow yaay taawu kër gi yow bu ñëpp dee déserté yow waroo déserté ndax taaw day nekk ci biir peggu baayam Khassim, reviens à la maison. kon du temps yi temps. d'accord très franchement du temps yi. d'accord je vais rien forcer mais je t'en supplie reviens sur terre et essaie de revenir aussi à la maison d'accord. ah tu sais ce que je vais faire. Avec le temps, on va essayer de voir. Mais tu vas, tu vas le faire quand même. Ah, Allez, prends ça. C'est pour toi. Moi, je rentre parce que j'ai des trucs à faire. Merci beaucoup. OK Et bisous. Tout à l'heure. Prends soin okay. de toi. Merci beaucoup. Ali la gende. di morning ma yor dara su ndogo ba pare di gende def dara moo ma gënal ñew fofu de Fofu dal ma ngi xor rek السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله آه، سنتوا سيسي سكلا سك سك سك سيسي سك سك سك سيسي نولي زيار بخ سك نعم كذلك سك سك سيسي سك سك بارك الله فيك يا رب جانك أنفو أنجي waaw ñoo doon jéem de doon doon nafar rek <laughs> ñoo doon nafar rek ndeysaan <laughs> eh, kontaan nañ bu baax ndeysaan ah, alhamdulilah sekk sekk sek eh, sekk ñu ngi lay ziar bu baax sekk alhamdulilah naka bokk euh, sëriñ Baro dafa dafa génn dafa génn euh, sànq rek xam naa ne soriwul loolu soxnaam moom it dafa génn dafa dem boori marché soxna aram dafa génn moom tamit dem boori marché sa mbokk la waaw sama mbokk la sama mbokkum daara la ñoo bokk nekk ca daara ja ca Saalum euh, ñu gëjoon a gise lool ma ne naa ñëw ziar si ko seet si ko fan yëpp maa ngi fi sax daanaka waaw te sax xam naa ne sax nijaayam sax laay doonaale waaw nijaayam sax laay doonaale ndax tabarakallahu euh, noonu la ko yàlla dogale waaw noonu la ko san dogale ndeysaan ndeysaan jërëjëf jërëjëf Ah, jari jauh jari jauh Ya udah nengah bahrek nengah, di kubahrek dengan <laughs> di kubahrek <laughs> wah jari jauh jari Yana ya, ya lebarkir <laughs> yana ya yàlla barkeel jërëjëf jari. ah góor gi lii ëpp na di waaye lii ëpp na di jërëjëf jërëjëf jari jërëjëf jari jërëjëf moo lay jëriñ fii la la jëriñ jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ko ko teral mo teral dëgg la wallahi degelah, degelah. bu baro Serigne Baro ñëwee. dëgg la dëgg la danaa fexe ba gis ko invité la sama kër. incha allahu taala incha allahu taala yow kontaan naa ci yow noo tudd. Baye Cheikh Seck Baye Cheikh Seck. Ah, yal na yàlla barkeel la. Ah, lii nga def nii ci alquran dara taxul nga def ko ci lu dul yàlla. yal na yàlla barkeel. yal na yàlla dolli tawfiixi hmm. li sama mala Yaxmen Jégel radiyallahu anhu daan faral di ñaanal jaam yàlla te mooy sutura yal na ko yàlla defal àdduna ak àllaaxira ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke yonent bi alayhi salaatu wa salaam naa la invité sama kër incha allahu taala bu soobee yàlla jàngil alxuraan neex na ma jërëjëf yow ku baax nga jërëjëf jërëjëf Seck jërëjëf Seck jërëjëf Seck kontaan nañ baax a baax kay Seck kontaan nañ Seck kontaan nañ Seck yal na yàlla barkeel ah te jàng ca sukkaru koor te ko warul bay Cheikh ak njabootam nga weru koor bul ko wuute yow bay Cheikh ak njabootam nga weru koor bul ko wuute yow bay Cheikh are are taxawal man yow mi hmm. dama yaakaar amna lo na loo dal diine ah, ji ngay foowe lutax tax am maam ban diine laa xam nga diine ji ngay foowe waaw yow ba nga jógee seen kër bu nëgg ni ñëw fi hmm. naam sax yaa ngi woor waaye ba nga ni musuma laa teg bët nga naafila lu sa digga teg naafila li nga woor dara baaxu ci amoo koor <laughs> del naafila mhm. waaw wax naa li ma lay wax nag gis nga maam man maa ngi lay door a comprendre mhm. gis nga ñàkk a naafila yàqul koor muy yéen xam naa da ngaa jàngul te sa jàng soriwul ah. naafila nag lu baax la lu bax la nit man nako def lu bax la parce que bonus la mais ñàkk naafi ça ne va pas dire que ni koor nit man na woor te ah kon tey da nga jox pour khalima ma man mëno ma khali ma mhm. la mak mak sa bay mak sa waju jigen mhm. dak la jang fop gën la xam lu lislaam wax mhm. gën laa xamit lu yoon wax deful muy neex muy te tanak dit maam tanak tanak déglu woor hmm. moo la tax a ñëw ci kër gi waaw boo deful ndànk nag mm-hmm. tontu moo fi fiy man fii nit duma ma tontu bu ma dee waxee pat mm-hmm. ngay def déglu ma le ma lay wax mm-hmm. del naafi la boo mënta naafi la ah buntu baa ngi nii ah, baax na nga dellu sa kër baay waaw naa li nga wax maam waaye dinaa la xamal leen de ñàkk a yàqul koor ko yow jógagoo ci baat bi nga ma wax kii jee tax bàyyam génn kii ku dëgër bopp la lii lii lii ku ko nekkee sa sa sa sa bàyyi mu génn la waxuma laa sa maam waaye fii sama kër kenn du ma tontu te yow sax war na am nañu liggéey sax yow bàyyi cheikh ak njabootam nga weeru koor bul ko wuute